ma buntu kër boo génn fooy jaar xaaral ngay tëb ñu lay xaar ci suuf dafa <laughs> bëri ah fooy jaar. waaw man man tey ba 9 heures du maa ngi maa ngi yëngu maire <laughs> suuf. waaw gisoo sànq laa yeewu dama 4 heures laa tëdd. ba 9 heures demuñu maa ngi ñoom ñuy fexe nu ñu lijjantee problème yi. waaw ñoom sumay waay lañu donc miin naa ko ak ñoom mais ma leen di wax rek euh, tuuti aussi ñoom tamit ah. ñu may gëstu ah, li may jàbbante gendarmerie ci porte plainte bari na trop. yow Waly ku lay porte plainte. waaw ah, dëkkandoo yi. Mhm. te fii ñëw nga fi déggoo fi musique bu tàkk. Mhm. bu foor bu déranger kenn maanaam kër gi leen di déranger du ci kër gi. Mhm. li leen déranger mooy maire yi toog ci buntu kër gi di xaar Waly te ñoom tamit yaakaar rek bu fi indi. ma leen di ñaan bu ñu ma soxlatee ñu dem bureau ba ndax man sonn naa ci jaawante bi police dañ lay convoqué convoqué tout le temps bëggoo leen jànni bëggoo leen wax lu ñaaw bëggoo leen waaw te dëkkandoo yi tamit seen dëgg la ñu ne hmm. ngi leen di balu ak, di leen ñaanal jàmm di leen wax ni man teguma sama bopp hmm. waxuma kenn ñëwal waaye tamit euh, dañ fi yaakaar rek moo tax ñëw ma leen di ñaan rek bu ma soxlaatee defar na bureau spécial fi maa ko maa ko sanc ah ci fii ci à côté de Ndiagoro nañ ma fay xaar waaye koñ bi dama dëkk ay samay nawle te ñu yaru ñu nag ñu ñu baax vraiment ni ñan ji dérangé gënalu ma man nangu naa ko ma déranger mais ñoom nag vraiment te dëkkandoo dafa fort dañu war a am jàmm